94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem kuy toppal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yoo xam dañ leen ko defal sa su nekk ci réew mi tim bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar na leen way leen di toppal 94 Walf euh, Sénégal cay Sénégal coow rek maanaam daal yaakaar na ne fi mu toll nii nit ñi sonn nañ lool ci open press yeeg ak làmp ji nga xam ne dañ ñu ko bëgg a tegal ni suñu kanam ñu fàtte lépp fàtte dëkk bi nu muy doxee fàtte li xew ci dëkk bi fàtte li feeñ ci dëkk bi moo xam suñu pétrole boobu ak suñu gaz bi ak suñu zircon bi maanaam daal boo xoolee mbir mi boo demee ba ci biir da xam ne loolu képp la ñu bëgg voilà mbër yi nag yaakaar naa ne xam ngeen bu baax a baax a baax liñ fi defoon voilà liñ fi defoon moom yàggul voilà parce que ñoom waxoon nañ ci dinañ ci waxaat influenceurs yoo xam ne ni yow ñu topp seen ginnaaw yi ay néew ji doole ñooñu ngeen war a gën a mën a jàppale surtout yéen ci seen jëmmi bopp ndax yéen ci seen jëmmi bopp rek mooy yéen am ngeen lépp wala lépp ñëwal na leen waaye daal yéenay bëgg maanaam di réeral askan bi ci lépp rek mooy maanaam seen làmb yi maanaam làmb bu ñu xoolee càmbar ñu waxante dëgg rek te yàlla tax amul lenn lum apporter Sénégal bu fekkee nit ñi seulement woon ginnaaw ñu ngi wax dëgg rek ay réalité amul loo xam ne rek apporter na ko Sénégal man gisuma ko man lu dul ñoom ñi ci nekk di leader yi bu fekkee nag école de lutte la école de lutte bi la fa nekk ti ay bu fekkee mat nañ cinquante dix képp ñoom ñooy ñi nga xam ne ni mën naa ne ñoo ciy tekki ñi si des ñëpp buñ amee làmb bala ñoo amaan làmb kenn du xam kañ la kon làmb voilà gisuma dara dara dara. lu mu mën a apporteel Sénégal lenn rek la mën a apporteel Sénégal leen ket kopp mooy lan muy ñoom ci seen jëmmi bopp alal jin leen ci fay ñu ubbi ci ay entreprise dama koy wax di ko waxaat bu boobaa moom dina apporteel Sénégal te cosaan li ñuy wax cosaan li moom kenn gisatu ko ci man da gisatu ko ci bokk man man ndax jaaj yéen daan sol ak xaftaan yi ak yére ya ak tamit liñ daan indi mu nekk culture bi loolu daanaka nekkuti lan mooy cosaan li léegi am fecc kepp kot fecc mu bees ay bàkku yu bees ak yu kenn xamul yooyu daal lañ lay wax voilà coowu làmb nag dafa dafa yaatu moo tax daanaka mën naa ni politiciens yenn yi bu nu sañoon coowu làmb di nekk fii ci réew mi parce que mooy seen arrangement parce que nit ñi dañoo gaaw fàtte dañuy coow ñaari fan ñetti fan ñu fàtte lépp maanaam tey boo xoolee bëre bi weesu rek ci diggante Ama Baldé ak Modou bi bëre weesoo ba grand place yi njaga njaay yi marché yi foo dem moom la ñuy waxtaane nga xam ne kon fàtte na li nga xam ne ni moom moo leen itteel dëgg muy li jëm vingt 2024 voilà ñu bari nag dellu si waat nañ ndax dañ doon wax ne làmb jooju li tax loolu mooy bari na ci ñoo xam ne amaa Baldé lañ doon jàppale waaye bari na ci ñoo xam ne nee na jeneen làmb ju fi mën a am duñ ko xool ñoom ñoo ko wax voilà moo tax nag mbër yi di profité ci loolu